wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk jële di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee suñ borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di balu ñëpp xaq te di ko bal ñëpp ñaan suñ boom mu boole nu jéggal waxtaan tey dañuy dellusi rek ci dénkaane bu am solo bi nga xam ne sëriñ bi dénkoon na ko taalibe yépp bi muy waaj ngir jëm ci tukkeem bu tedd boobu bii nga xam ne bisam ñu ngi koy waajal ci kanam tuuti dénkaane bi yaatu lool tamatali lool jëm ci mboolem ñaaju ci moom ci la ñuy delsi nga xam ne njaalbeen gi li ci gën a ràññu ko rek mooy ak ragal yàlla wax ne yéen taalibe bu leen am dara lu ngeen di tiit mbaa lu ngeen di ragal waaye maa ngi leen di dénk ragal yàlla mu màgg mi mu ne solo na jël ci soxna Aïcha radiyallahu anha mu ne amul dara lu ma sa yem rasulullahi ci àdduna kenn mësu ko yemit ku dul borom bu ragal yàlla mu ne jël nañ ca xataadata radiyallahu anhu mu ne bind nañ ca tawraat ne na aadama ittaqillaha wa nam xaytu shita yow dama dem ragale yàlla soo xasee ragal yàlla na fa la soob tëddal nelaw mooy sa xel mën naa dal ci na dara luy lor àdduna ak àllaaxira ak si coow kon kaaraange li gën a dëgër mooy ragal yàlla mu ne kenn ci gaa yu baax yi mas laaj kenn ci ay sëriñam ne ko dénk ma mu ne ko dénk naa la li yàlla dénkoon ñu njëkk ña dénk ko ñu mujj ñi ndax su nee na ci alxuraan dénkoon nanu ña leen jiitu woon dénk leen yéen ñii it ragal yàlla sunu boom waxit na ba tey ne kii gën a tedd ci yéen mooy ka ko gën a ragal mu ne kon nag képp ku bëgg tedd ngay àdduna ak alaaxira na ragal yàlla tedd ngay àdduna ragal yàlla rek ko ko mën a maye tedd ngay alaaxira ragal yàlla képp moo ko mën a maye muy li gën a kawe nag ci martabay ragal yàlla ba ci gën a kawe mooy moytu lépp loo xam ne loru diine daf caa nekk te mooy mooy yàlla ko caay-caay mu ne maa ngi leen di dénkit ngeen ngeen farlu ci sàkku xam-xam ndax xam-xam yoon wi leen di àggale ci ragal yàlla googu may dénkane nit ki mënta ragal yàlla te amul xam-xam ndax sun boo ne ni ko ragal ni ko xam rek ñoo ko ragal ñi am xam-xam ñoo ko ragal mu ne kon nag képp ku bëgg a sóobu yoonu alaxira na xam lu li nga xam ne ci lay mën a wéerale ak topp yàllaam ron na ci xadis ne inna fadala al aalimi ala al aabidi ka fadli ala ummati nga borom xam-xam ci jaamukatu yàlla mi ngi mel ni sama ngëneel ci sama xeet man ni ma gëme gëne sama xeet noonu la borom xam-xam gëne jaamukatu yàlla bi nga xam ne amul xam-xam mu tekke ne mu ne ba tegaroon na ci xadis ne nazratun ila al aalimi ahabu min ibadati sanatin siyaamiha wa qiyaamiha rasulullahi sallallahu xool boroom xam-xam moo ma gënal jaamu yàlla ak at mu ànd aki wooram aki taxawam at moo xam ne dama ko jaamu yàlla di taxaw guddi ya di wër bëccëg ya neen xool borom xam-xam moo ko gënal kon day won rek kon lu am ngëneel la mu ne maa ngi leen dénk it jëfee gannaaw xam soo ngeen xamee ba noppi ngeen jëfe ko ndax xam-xam lu mu bari bari bari suñ ko jëfewut amatul njariñ kon bu leen jëf te tegaleen tegaleen ko ci xam-xam waaye bu leen xam la it te jëfewu leen kon ñaar yooyu ànd mu door a mën a mat jëf ci tegu ci xam-xam ma pënd bu ñuy saaree dañu dañu yem waaye xam-xam bu teg bu ñu jëfewut it moog mbaam mu sabee téere ñoo yem lu ca jariñu mu ne na xam ne nag xam-xam dafa deme ni garab garab gu sax meññet waaye jaam yàlla nag mooy meññet ma cay bàyyi ko garab guy meññ nag njariñ la nga ca meññet ma mu ne alxasanul basri rada yàlla na ko yàlla yërëm wax na ne na ngeen sàkku xam-xam sàkku yin woo xam ne du lor jaamu gi waaye na ngeen sàkkoo jaam yi sàkku yin woo xam ne du lor sàkku yi xam-xam mooy benn bu nekk bu mu yàqal morom ja da ngeen xam ne xam-xam kat mooy jiitu jëf jëfe koy topp da ngeen nag baril lu ngeen di baamu seen pas-pasi liimaan seen pas-pasi gëm yàlla ci biir ak ci biti te xamal nag seeni mbooloo la yàlla waral ci ñoom mu ne gëm yàlla moom yi nag làmboon na juróom benn fukki pas-pas ak juróom benn mu ne kon yéen sama nit ragaleen yàlla te topp ko ca lam leen digal bu leen wuute mukk ak i ndigalam waa na ngeen moytu ay tereem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 toujours ci bañ a wuuteeg ndigali yàlla yi da ngeen di teet ay tereem bu mu leen gis mukk fu mu leen tere waaye bu mu leen ñàkk a gis mukk it fu mu leen digal da ngeen xamal nag seeni doom ak seeni soxna ak képp ku aju ci yéen la yàlla waral ci ñoom lu ko may bis penc ci faawu def na leen ko laaj na saxit ci ak tuub ci waxtu wu nekk ak saa su nekk ngir ngeen mën a am tawfiiqi topp yàlla ndax gaafug bàkkaar dafay xañe sabab yi jur ma yërmande yàlla waaye dafay jur itam gàcce tey ëllëg te tënkug bàkkaar day tee mën a dox maanaam gaaf dafa dafa bàkkaar dafa mel ne ab jéng da lay jéng téye say tànk ba teel a dox jëm ci luy jur yërmande suñu borom teelaa dox jëm ci topp yàlla laa dox jëm ci liggéeyal liggéeyal yàlla mu ne kon maa ngi leen di tere nuur ci bàkkaar ndax nuur ci bàkkaar dafay lëndamal xol te di ko wowal ba ak mucc wala gennuk sell door ci mën a am su ko defee da koy daal di nag bànneexub topp yàlla day ñoddi boroom jëmi ko ci kéefër jëmi ko ci texeedi waaye maa ngi leen dénkit di leen digal ngeen ngeen ngeen jañ mboolem ñeenti gàllankoor yi ñeenti gàllankoor yi ba ci njëkk mooy àdduna lan koy jañee mooy summi ko ci moom dangay ngay summi ko ci àdduna mooy dëdd ko woon ko gannaaw ndax misaalum àdduna ak alaaxira dafa deme ni ñaari wujj koo ci gërëm loo rek merloo ko ca des dafa deme ni it penkook sowu loo gën a jëm ca morom ja yaa ngi gën a sori ka ca des maanaam loo gën a jëm penku yaa ngi gën a sori sowu loo gën a jëm sowu yaa ngi gën a sori penku ne noonu la àdduna ak àllaaxira kon déggoowuñu ànduñu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa itam wax na ne képp ku bëgg àddunaam rek lor na àllaaxiraam waaye képp ku bëgg àllaaxiraam nag lor na àddunaam kon na ngeen gënal na ngeen tànn lii des mu gënal leen liy jeex àllaaxira mooy des waaye àdduna dafay jeex kon na leen àllaaxira gënal àdduna ñaareel bi ca gàllankoor yi mooy bindeef yi mooy na moytu bindeef yi te daw ak seen diine bu leen jaxasoo ak ñoom ndax képp ku jaxasoo ak ñoom ñu soxlaal ko ba dox ba dox diggante mu topp yàlla azza wa mu ne kenn kon kon yéen sama nit na ngeen takkook seeni na ngeen toog ci seeni kër te téye seeni làmmiñ te jàpp ci li ngeen xam bàyyi li ngeen umpale su ngeen bëggee mucc bis ba nga xam ne alal du fa jariñ njaboot dafa jariñ waaye xol bu sel rek moo fay jariñ borom maa ngi leen di dénk itam ngeen yem ci seen mbiri bopp la ñëpp bokk ngeen bàyyi leen ko mu ne jël nañ ci suf Sufyaanu Sawri yi yàlla na ko yàlla yërëm mu wax ne jamono ji jamono yu noppi la waa jamono toog sa kër la ak doyloo la nga am ci dund ba keroog ngay faatu jëlee ñu ite ci ko ñu wax daawuda daawuda taai rahimahullah mu woor ci àdduna te def sag dog muy àllaaxira danga daw nit ñi ni ngay dawee gaynde ba ko ñetteel ci gàllankoor yi mooy seytaane mooy na ngeen ko moytu te jànkonteeg moom te xare ak moom seen kem kàttan ndax noon la boo xam ne du nooy mukk du yeween mukk saabu bu doomu aadama sàggane rek mu fàdd ko su ngeen bëggee mucc ci moom nag dangeen di sax ci jànkoonteeg moom ak di xeex ak moom ak di muslu ci yàlla mu musal leen caawaayam tey tudd yàlla nag waxtu nekk ak saa su nekk ba ko ñeenteel ci gàllankoor yi mooy bakkan maa ngi leen dénk ngeen moytandiku ko ngeen moytandiku bakkan ndax mooy ki ëpp lor ci mboolem noonu yooyu ma tudd eh, am na toom itam moo gën a jafe saafara ko it moo gën a jafe ci mboolem bi mboolem yëf yi ndax noonu la bu ne ci sa biir mu ne ab sàcc nag soo dëkkee mu ci génn kër mucc ci pexam day jafe te it loram day day day day gën a matale tey da te day noon bu ñu bu ñu bëgg noon bu ñu sopp te doomu aadama silmaxa ci ay bi boppam ba daanaka du ko bàyyi xel du ko xool balaana bu nit rafet rafetlu ci boppam lépp lu bon te it du yër mukk di nemmi koy ay ay bi boppam te teñ mbokk ji nga xam ne ay noonam lañ yoo xam ne yu sax di ko lool ba lool ba faw waaye moytandiku ko nag ak mucc ay pexem du lu yomb waaye lu jafe jafe jafe jafe la ndax du masa noy mukk tayit not ko benn yoon comme ni nga mën a noté yeneen noon yi moom bokku ca bakkan bokku ca ndax mooy sawarwaay di sa jumtukaay mu ne su ko not lu ma ci yett yëf ba ci njëkk mooy dox digganteem ak bànneex yi mu ne daaba ju weex daaba su fekkee dafa weex Eh, soo bëggee mu nooy dangay wàññi ab xontam yokk ab sëfam soo ko defee rek mu nooy kon ba ci njëkk mooy mooy mooy mooy wàññi ab xontam ba ko ñaareel mooy nga dolli ab sëfam mooy na mu ne mbaam nag noonu la ko waxee fa innal ximaare ida usida fi xamli mbaam su fekkee da ngaa yokk dolli ab ab ab ab wàññi ab xontam dana daldi mokk naa di nangoo wamutu ca lan ko lan ko lan di jëme ba ñetteel nag mooy muslu ci yàlla ak torox lu jëm ci moom boobaa mu dimbali la ca mu ne maa ngi leen dénk di yéen sama nit ngeen sàmmonteeg juróomi cër yii ku bëgg ragal yàlla na sàmmonteeg juróom yooyu bët njëkk mooy bët mooy sabab bi sépp fitna fitna ju jum rek fitna ju nit am rek sabab su ma nga tàmbalee ci bët ci ab xool moo tax suñu boom digle ñu damm gis yi képp ku dammul ab gisam xanaa yoolamal rekk laa bi ab gisam fu ne fu ko neex mu jëfali ko fa ci lu ko amulul njariñ du ñàkk mukk mu gis lu xaram su ko tayee muy bàkkaar bu rëy baraana ba ab ab xolam di ajoo ci mbir moomee alkande alkande dal cee juddoo mu ne soloo nañ ne ab jaam xadis la dana xoolub xool boo xam ne mën naa dem ba ab xolam nëbee ci xool boobee ni ab der di nëbee ci buñ ci ci ci sebéc maanaam buñ buñ bu buñ koy tàpp buñ koy defar nga xam ne borom dootu yi mën a jariñu mukk ci xol boobee su fekkee la ngay xool lu dagan la baraana bum la soxlaale soxlaal sab xol ba jeexe jaaxa dikkal la ca loola xaala isa alayhi salaam yonent yàlla ne maa ngi leen moyt maa ngi leen di moyt ndikaloo ab xool ndax dafay jëmbat ci xol bi bànneex te boo daan doy sëkk borom fitna moo tax euh, ñu wax ne kon kaaraangeel bànneex mooy damm ab gis bu dee nopp nag maa ngi leen dénk itam ngeen ñoŋal ko te bañ cee déglu ay wor bañ cee déglu ay caaxaan bañ cee déglu amul njariñ ndax kiy déglu ak kay wax lu bon ñoo yamu bàtte da ngeen xam ne wax ji nga xam dafay tàbbi ci xolu aadama dafa dem ne aw ñam bu tàbbi ci biir lor mën na ca am njariñ mën na ca am ndax ab dund may sa caa def tooke mu la borom mu ne kon na ngeen moy nangeen sàmm seeni dégg ci lépp lu leen amul njariñ kon da ngeen noppalu ci mboolem coono yi mu ne bu dee làmmiñ yi itam maa ngi leen dégg ngeen sàmm ko te tënk ko ndax mooy ki gën a tar ci mboolem noon yi moo ci gën a mën a màmm gën cee mën a daw gën cee bari yàq gën cee barik noonu ba tax na kenn ci gaa yu baax yi ne woon waxoon na yonent bi saa sallam ne ko yaa rasulallah maa akbaru maa taxaafa alayya fa axada alayhi salaam bi lisaani nafsi suma xaala hada ana lan nga gën a ragal ci man ne mu téye ci làmmiñam ko xanaa kii soloon ba tey ne aadama saa bu xëyee cër yépp dañuy xëy si ci làmmiñ yi ni ko rekk waaye dimbal dimbaleenu rek ndax soo jubee day ñun ñëpp dañ bokk jub waaye soo dëngee ñun ñëpp ñu bokk dëng kon nag dimbale na rek bañ wàcc yoon wi bu dee xol bi nag maa ngi leen dégg ngeen sàmm ko te yewenal ko ndax mooy ki gën a màgg ci mboolem cër yi dansé waaye moo ci gën a bari itam jeexit tax na rasulullah saa sam wax ne yàlla du xool seeni melokaan du xool seeni jëmm waaye la muy xool ci yéen mooy seeni xol kon xol mooy barabu xoolukaayu rabbul alamin yàlla borom subhanahu wa taala kon bu leen yittewoo yenn samay bokk ci seeni xar kanam ak seen yaram di ko sang ba mu set di ko setal ci mbooleem tër yi ak tërim yi ndax yàlla xoolul loola waaye na ngeen yittewoo luy defar seeni xol ndax nekk gi mu nekk barabu xoolukaay yàlla subhanahu wa laabal ko ci mbooleem tër yi ak mboolem xeeti caay-caay yeeg yaa koy gàllankoor yëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne am na ci jëmm suux wow su baaxee jëmm jëpp baax waaye su yàqu jëmm jëpp yàqu te mooy xol eh, kon fekke na yéwénug lépp eh, ca moom la nekk ci xol ba kon warugal nag wëlbati eh, wëlbati laab yi nag jëmee ko ci moom te ngeen jëfandikoo seeni xel ci xalam mu dee biir biir itam maa leen dénk ngeen ngeen sàmm ko te yewinal ko ndax mooy ki gën a tar ci cër yi na sàmm seeni biir ci lépp lu xaraam ak lépp lu lënt ak lépp lu lu lu lu luy xeeti caaxaan su fekkente ne yittewoo ngeen topp yàlla ak jaamu ko na ngeen sàmmonteeg si la ngeen la ngeen di la ngeen di lekk ak la ngeen di naan ndax la ngay lekk ka naan nu mel rek ca loolu la lay jëme su dee lu baax mu jëm la ci baax su fekkee dafa day lu xaram jëme jëmee ci jëf lu xaram te yonte saa suñu tam waxoon na ne lépp yépp suuf yokk ci jëmm ji ci lu xaraam loolee sawaraa ci gën a yey te kiy lekk lu xaraam ak lu lënt ku ñuy dàkku la def ko defal tawfiqi jaamu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ne doomu aadama feesalut ndab lu yees biiram mu ne biir moom yi nag am na fukki gàkk ba ci njëkk mooy barig lekk dafay wowal xol di xañe ak leer ñaareel mooy fitnay cër yi da caa nekk eh, di ko di ko di ko jëmale ci ay nen ak i caaxaan ak u yàq ñetteel ba dafay yóbbe néew dégg ci kuy sàkku xam-xam ndax euh, biir bu fees dafa yóbbi nit ki fitna da koy xañ sago ba ko ñeenteel itam néewug jaamu yàlla dafay dafay tax nit ki néewal ak jaamu yàllaam am saa bu lekk gi bare rek yaram yi dafay dal di diis euh, tayal ci lépp lu koy jural yërmande suñu borom ba ko juróomeel da koy xañ bànneexub jaamu yàlla Seydina Abubakar ne Siddiq yàlla na ko yàlla gërëm nee na musuma lekk ba suur ba ma duggee ci lislaam ngir bëgg am rek neexitu jaamu yàlla ba ko juróom benneel nag mooy eh, eh, dafay dafay tàbbal nit ki ci ci lënt ak ci lu xaraam yàlla na suñu dimbale matul waaye nag bu ñu ci yeesee incha koo motli lu yaato yaatu la yàlla suñu ba mbole dimbale bal defal tawfiq xëy nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله المرشد المعين مدبر أمور الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أجل شفيع في المذنبين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه جعل للإسلام قواعد وأركانا وأمرنا بإقامتها سرا وإعلانا وجعل أعظمها بعد الشهادتين الصلوات الخمسة وحتم علينا إقامتها في أوقاتها التي بينها لنا بلا لبس وجعل ذلك من أفضل القربات وأجل الأعمال المقربات وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وإن إضاعة الصلاة من أكبر الكبائر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين الحمد لله الذي عظم كرمه وعمت البلاد نعمه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحمود وعلى آله وأصحابه ذوي المعرفة والشهود أما بعد فيا أيها الناس يلقى السعيد من نظر واعتبر وتأمل فيما مضى وغبر واتعظ بمصارع السالفين وقد كانوا يرجون رحمة ربهم خائفين ولم يغتروا بنعم الله ودوامها ولا يئسوا من رحمته عند انعدامها بل كانوا كالطائر بين جناحيه لا يخافون إلا مولاهم ولا يرجون إلا ما لديه وقد قرن سبحانه بين الوعد والوعيد في غير ما آية من القرآن المجيد كقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم تكونوا راجين من الله رحمته خائفين عذابه مشفقين من عدله مشفقين من عدله منتظرين فضله وثوابه اللهم أدم علينا نعمتك ومنتك وأجرنا من عذاب من عذابك المهين بفضلك وكرمك واغفر لنا ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة ذكرى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 allah allah akbar subhanallah liman hamidah rabbana الله أكبر الله كحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام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 asalaamualeykum asalaamualeykum bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mawaahibun naafi'a fi madaa'ihi shaafi'a bismillahi rrahmani rrahim allahumma ya akramu salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa naasiri al-haqqi bil-haqqi wal haadi ila siraatika al-mustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim waj'al haadihi al-amdaaha jaalibatan ila al-iimaani wal-islaami wal-ihsaan wa ila as-sa'aadati ad-daa'imati wa farrih biha rasuulallaahi sallallaahu ta'aalaa alayhi wa sallam haysu quri'at aw kutibat aw nudira ilayha abadan aamiin yaa rabbal aalamiin waj'alha mimma tataghanna biha alhurul aynu walwildaanu fil jannati allati wa'ida almuttaquuna waj'alha min habbi shukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaam bismillahi yanmuluhayi bila manayi wala intihayi bismillahi yanmuluhayi bila manahi walantihayi hamdan li rabbi khayri murabbi khadram khalbi bil iqtidayi lahu shukuri bila kufuri wa huwa nasiri minu fidayi law ixtiraabi bila ixtiraabi law xitaabi ma ihtidaayi laka ridaayi laka sanaayi laka iltijaayi ma tidaayi yaa man shafaani yaa man hamaani amman jafaani bi mahwidaayi asbil sutori aslih umuri kathir khuyori bila kidayi ya man ajaba man istajaba habli ijaba fi zannidayi ya dhal ya dhal ya khayra wali safil luhayi يا ذا الوهود يا ذا الوجود كن لي بجودي بلا انتهاء صفي وصولي بلا خفولي لجد بسولي جميل رداي هبلي تلاوة ما لالاوة هبلي دراية لدى لداي أصلحت حالي بلا ارتحالي بهديالي بلا بكائي لقبل متابي وهم جنابي وسن مابي جاوير سكاي خن الغرورا ومن خرورا هب لي نصورا ما تكاي قل لي نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن شركائي زدت هدايا قلت هدايا أهلي بردايا دون اشتكائي يا خير مغني أغنى بمني علي وزني بلا خلايب laka shukuri hinda duyori ya dal khusori bila jalai ya man kasani ya man sakhani ya man hamani anil khalai anta muradi anta imadi nawir fadi ya zaddiyai zahzahta aybi adabta raybi taharta jaybi kalasfiyai anhayta sayri tayyabta mayri kulli bi khayri kalat qiyayi yaa xayra muhyi kulli biraayi wa xayri saahi kalazkiyaayi habli istiqaama qinil malaama hablil karaama bizil liwaayi bizil jamaali bizil kamaali bizil maali bizil dawaayi بدل عبادة بدل إفادة بقرق عادة للأولياء بذي النوالي ليس الختال مرضي الرجال الأشقياء بذي السحابة ذوي الإجابة jaalil kaaba zawiddiyaay bidil hurubi jaalil kurubi nooril aribi maayir yaay daagal muni